muy jataay boo xam ni wax dëgg yàlla nun bala noo sant kenn dañuy sant yàlla sant Serigne Cheikh mi nga xam ni moonu yebal fii ndax fii ku fi yebal nit am na loo ko bëggal ci ba ku fi teew bu la neexee di jariñu bu la naqaree di nga jariñu ba tax na ñu ngi sant yàlla di gërëm sëriñ Cheikh di ko ñaanal li mu bëgg ci kër maamam gii yàlla nag ko yàlla defal ba defal ko ci lu ko lu mu foogul woon te yaakaar nañu ko bu baax moom nag bi mu nu yabal dafa wax ni foofu leen yebal dey bu sama tànk wayefoon maa fay teewal sama bopp ndax ñaar xam na waaye ñett xamul maag Cheikh Seydi Moustapha nun ñépp noo bokk Seydi Hadj Malick nun ñépp noo bokk sëñ Babacar waaye maag moom nag beneen affaire la bi ma ajee Màkka 1987 dama jënd sajaada ak kurus bi ma ñëwee ànd ak sama taaw ki ma tudde Serigne Cheikh ni ko kaay gunge ma ci sëñ Moustapha keroog Bilal ka moo nu dugal onze heures ba ñu julli tisbaar ba pare sëñ Moustapha ngi wax waxtaan ak man di wax ci diggam ak Serigne Cheikh di ma nett li yu bari wax ma shérif yi li tax bu ñu masaan ñëw ci sëñ baabakar lañuy dal ak lu tax ñu daan fi ñëw keroog man defe woon naan sax sëñ Moustapha xamuma waaye mu nga may wax ba wax ma sama diplôme alxuraan bi ma xusari joxoon ndeke yépp xamoon na ko e, muy koo xam ni balees koo xam di ëllëg ndax am na ñoo xam ni xajuñu fii e yaraax gii nag bi fi seex seydi Mouhamadou Moustapha duggagul booba bu doon séer ma ni yaraax na ku ko sangoo dinga liw waaye bi mu fi duggee séer bi fatt na léegi yaraaxatul waaye yaraax itam ci wàllu chafafiya di transparent la xawma lu leer lañuy def lu bon amu fi seen mbir yépp amuñu lu ñuy nëbb lu leer la ah ñuy ñoo xam ni lii ñu am tey dëgg la chance la waaye taxawaay itam ca la parce que Serigne Cheikh dafay wax ni nit day góor góorlu taxaw jëf ñaq li mu man lépp mu def ko lam mënul nag mu soog a tàllal yàlla loxo ñaan ko ko mu ne ndax yàlla taxawaay la santaane ak liggéey ndax bëgg na dimbali ki toog sax naam waaye ki taxaw la xamul nu mu koy def kon ki taxaw mu amee priorité eh, wax ji nag du gudd ndax sëñ Cheikh daf nu waxoon ni bu ngeen fa fekkee sama doom Mouhamadul Mansour na luñ fay wax na ma ko waxal eh, ku ngeen fa fekk bu fa nekkul bu fa si Ahmada nekkee na ma waxal bu fa nekkul sama turandoo gi ni Seydi Hadji Malick Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha dafa am ñaari malik kii mooy maam As di Seydi Hadji Malick maam Malick Sall moom la tuddee maam Malick mu jur soxna euh, ummul muminina soxna ummul xeyr sàll eh, yàlla dogal wax dëgg yàlla mook Serigne Cheikh defe naa ni Cheikh Tidiaanam moo mag Moustapha am Serigne Cheikh <laughs> kon moom moo tëgg jëkk a rakkam doom rakkam itam fay ko muy loo xam ni lu rafet la xalifa eh, saar mi doon wax léegi wax dëgg yàlla moom mën na wax ci turu ci yéen yépp ndax moom soxna xaddi si moo ko jur soxna xaddi si mooy caatum soxna umul xeeri sàll ak sëñ Babacar e eh, Abdourahman Sarr mi way juram wu góor soxna si mi ko jur moo topp ci sëñ Babacar kon wax dëgg yàlla moom ñu tudde koy sëñ Babacar boole ci ah jamono bi nag dafa xat te li temps bi li nu li ñu laaj mu def ko temps bi mayuñu ko waaye gis nga mbir mii bu ko temps mayee woon kenn ku ne di nga ba nga wax li nga ci xam ak li nga ci yaakaar ci yiw eh, dina baax torop sunu jaam bi sant mbay te doon waxtaan di firi xalifa mbay dama yaakaar dafa poñse laata moo ñëw ndax ni mu saware daal xam naa ni xiiful <laughs> e, sëriñ bi nag daf nu boole woon ak sëriñ Moussa Gueye imam Moussa Gueye boole nu ak sëriñ Samba Cissé ñu bokk ndey ak baay maak moom imam Moussa nu bokk ndeeg baay ci wàllu maanaa ndax noo bokk lu nu bëgg bokk lu nu jàpp bokk lépp eh ñuy ñaan yàlla xale yi sabab lii yàlla buñ jéemati lu ñu tële ci lu baax ñi doon woy itam yëngal nañu nu ndax pecckat mën la mu ñuy dënd eh maam a sax mi ma doon tooñ ni teengaay ngaa jóg barkeelu ma ne ko a ah, du ma ni dama màggat ndax màggat aw saaga da cee ànd waaye daal magge naa waaw <laughs> àggaguma ci saaga wi nag waaye mage naa nag e loolu rek moo di woon kàddu yi moom daal na ko sëñ Mansour waxal e bu yaatu woon sëñ Moussa mi dañ koy jox mu njàmba sér bi waaye fa tabarakallahu yal na fi dajewaat ay déwéni déwéni déwén di profiter di nuyu eh, sunu mbokk mi sant mbay te représenté fi maire bi ak sunu goro yii ek ak bokk yi nga xam ni ñépp gis nañ leen te xam nañ leen ci jëmm waaye xamuñu seeni tur sama doomu xarit benn bakkan di Souleymane Mbaay di doomi Assane Mbaay rahmatullahi yi defal sëriñ Cheikh lu ne mi ngi fi toog asalaamualeykum wa rahmatullah yaa man atamma xilaas sama xilaasu zahab bii faiqan durar yaa man ataa bi xilaasin faiqan durar sama am sëñ Babacar Fellu famille la bu nga xam ne bi dangay bind critique littéraire yi du génn kër gi si biir kër gi nga koy fekke waaw ñoom ñooy analyser moom analise na boppam rafet na li ma bind rafet na waaye yonent bi rekk a ko yeeyoo sa maam sëñ Babacar wax ko ni ka bind nga bind nga tagg nga kii ka jar muy yonent bi tagg bu nga xam ne bii rafet na rafetaay bu nga xam ne bii soo gisee nit ku ñuul mu yéem ko soo gisee nit ku weex mu yéem ko waaye mu ni ko kan moo ma yéem yonent bi nga woy ak jikko yi yàlla dajale si moom yéeme na xel mi nga am ak xam-xam bi nga am boo woykat ni nga ko woyee yéeme na waaye bàyyi xam nga kan moo ma yéem ni ko yàlla bi nga xam ni bii moo def jikko yu rafet yooyu si yonent bi ba nga way ka jox la xam-xam boobu ba nga woy yonent bi way wu rafet bi nga ko way ndax jikkoom yu rafet yi nekk si moom yàlla rekk ma yéen man yàlla daf lay fal waaye daf lay fal ba pare nga fexe nag ba mu faale la li tax nag mu lay faale yaa ko def xoolal delloo yépp si yàlla amul tawxiid bu ko féyte kaw kon nag ñu seet ni jamono ji ñu nekk sama Pape Cheikh si sa wàllu xalifa bi si wàllu dégg jamono si wàllu dégg tariqa bi si wàllu dégg diine ji si wàllu dégg doomu adama waaw loolu yëpp daje na si moom ñu ngi ñaan yàlla ko xamul lu bon waxumaa ko mag mu nee na jànkoo àdduna nee na la ca gën a metti nuy jànkoonteeg moom bu dee kaani la ba safatul kaani ci noonu la ca gën a neex te dagan jànkoonte nanoo moom bu dee lem la safatul lem ci noonu léegi daal li ñu saf mooy défendre dëgg taxaw doon soldat wu dëgg ak ka ci gën a tuut fu mu fekk dëgg taxawu ko waaye fu mu fekk neen itam këdd ko yaa ngi koy wax léegi ñu ci xaar xaar yu bëri xaar xaar yu bëri kenn ku ne ñu yaa ngi koy critique sa bopp waaye am naa ko ci jaay critique politique nga ne yéen ñi Mame El Hadji Malick na Serigne Babacar yéege na waaye Saliou Mbacké ma nga ca woon ngay dugal ñu ci kaar bu mag boobu la climatisé ñu wàcc Màkka nga yóbbu ñu ca euh, Kentucky Fried Chicken waaw mhm, maa ko mujj tudde Kaaba Fried Chicken jëndal ñu fa ay mbaggu ganaar Kaaba Fried Chicken Kaaba waaw benn place la boo xam ni ay mbaggu ganaar ak ay yooyu rek lay jaay tabarakallah lu dul ganaar du ko jaay ñu dog ci dog bu tabarakallah mucc ayib commencé omra dugge baabu salaam bi ñu ñëwee wër kaaba gi ak tawaaf bi ngay tawaafe keroog sa téere maam bi ñu naan fala budda léeg-léeg nga dugal ci taysiir si biir ak yeneen ya nga ca boole mu yëmma lool maziltu waqifan zalilan xaqiran mustaxisan li shiddati naar yi indu yi pakistanais yi asiatique yi ak képp ku fa nekkoon di wër kaaba gi taxaw a dégg li sëriñ bi wax sànni nga sa téere ñëw àndandoo topp ci sa ginnaaw foofa ay kàngama fa nekk foofa cuune nekku fa ñu ñëpp ñu àndandoo topp sa gannaaw wër kaaba nga def suñu tawaaf ba jeexal wër a jëm ci xajarul aswad soxna faat si ñu ngi ko teg ci sérieux bi ak néew doole gi ak ñàkk kàttan gi mu bëgg am yéene fóon kaa kii bi nga ni ko nga ni ko bàjjan xaw na xadde mu ne la bëgg naa ko fóon far ku ñu wax jibril ku tudd jibril ñëw yor puus puus bi ñu ne nii rek sëriñ Mansour ne bismillah bàjjan ubbi rek mu mel ni yàlla dafa ni ñëpp puus leen ñëpp puus ay junni ay millions yi nit a nga fa woon ñëpp puus Mansour du ñu woo benn benn ñu ñëpp ku nekk fóon ba doyal ku nekk fóon xajarul aswad ba doyal jóge fa ñu dem safaak marwa si Malick loolu ñu seede ko ci yow ak la fa xew du ñu wax lépp ci tànt bi waxtu bi du ñu ko may waaye li ma gën a yéem nag mooy ba soxna euh, Aseetu Sarr génne àdduna soxna Aseetu Sarr di sëtu Cheikh Al Hadji lépp nekk sa loxo nga indi ko ci kaaba ñu julli tisbaar ba pare nga ni taxawal imam bi jullee ko ñu jullee ko ñu war ko yóbbu ci armeel yi ñu suul Sittuna Xadija yaakaar armeel yi armeelu màkk yi keroog bañ koy denc man ak yow ak mën suur loo ñoo dugg ci biir billaahi wallaahi tallaahi nga wax fa wax yu yéeme ya nga fa wax ñaan fa ñaan yu yéeme ya nga ko wax yaa ngi koy déy naan ko ishti saidan wa mitti saidan wa satubaasu saidan insha allah ay waay soxna Aseetu Sarr mi seetu Cheikh Alxaaji Malik dund nga ci jàmm dee nga ci teraanga di nga dekki ci teraanga loola wéy ca korite ga ca Medina eh, yàlla dimbale ñu nga amaat fa keneen ku génne àddina ñu war kooram nga taxaw loolu yëpp neex na lool waaye li ma gën a yem mooy keroog ba nga indilee sa maam Abdou sa xarit sa maam Abdou daf la bëggoon Mansour Mansour sa maam Abdou dafa wax ci yow lu bari ñu bari dañ may yéem naan mooy maam Ousmane lu tax ngay wax Mansour si yàlla ma ni leen seen dégg toll foofu waaye moom xam na yàlla xam na man xam na su suñ ma koñ mayee ma wax ko may nañ ñu ko mamaas ok dama mës a am soxla surtout Cheikh xaaj Hadj amul soxla bu dul faju yàlla dimbale leen loolu seen maama ko liggéey de amagul boobu amul soxla bu faju dem ci sa maam Abdou sa soppe bu baax ba déy ko mu ne ma ah xaaral ba yàlla ñëw fi mbaax bi mu nga tëdd fi mu tëdd léegi-léegi rek ma xaw a yàkkamti ñëw mel ni kuy nuyoowaat kooku maam Ousmane ma ne ko waa mu ne ma yàlla ñëwagul de <laughs> ma demaat toog ba mujj gi daal ma ni gannaaw yàlla lañ may xaar loolu naa xaar yàlla yàlla yàlla su guddee itam dina ñëw ba mu am ay waxtu yu néew maxtaar kebe bi doon loxoom woo ma ma ñëw mu jox ma enveloppe ne ma sa papa nee yàlla ñëw na ah ma dugg ci wanag wi waaj xool ko mu nekk ay këyitu dollar ma nga ci yeneen këyit yu yu dul kopparu réew mi ma nga ca këyit yi daal li ci gën a néew boo ko wecc ko dina mat fukki junni te du benn du ñaar du ñett ma ni jërëjëf ñëw ci Pape Makhtar woo ko nekk Pape dimbali ma kan moo ñëwoon sama sànq mu xalaat ni ma ah kenn ñëwu fii ma ne ko déet ndax sànq yorul woon dara te dafa ne moon xaaral ba yàlla ñëw ah mu ne ma ah kay alaaji Mansour bu Sidi Jamil ñëwoon na fi léegi doon ko ziyaara yàgg na fi ma ne ko kon mooy yàlla <laughs> waaye loolu lépp si sa mbaax la ak suñu diggante waaye ah kañ waaw yàlla yàlla daal moom daal tabaarakallah macha allah ci njàmbaar ga ci lépp waaye loolu lépp li ñu ci gën a yéem mooy sa maam bi mu lay tagg dama doon xoolaat texte bi fan yii rek mushakkalun woy wi ci kaw neex na euh, al fan fanni baax na neex na ak yépp waaye li ca biir moo ëpp solo ma mel ni kuy def tax taxliilu nas waaye li ma gën a yéem sa maam ndekete yoo ba muy commencé texte ba waxul ci sa wàllu baax waxul ci sa wàllu ndey waxul ci sa wàllu bàyyi waxul ci sa wàllu yëf zil xuluqil yàlla tëggewul rasulullahi lu dul jikko mu ne rasul ak nu uh, mu ko commencé mushakkalun min abari wa xuuti sama am Abdou moo koy wax li nga ko tàmm di ko defal waxtu wu jot waxtu boo jógee xaramayni sharifayni seet yi fa gën a tedd indil ko ko keroog nag nga indil ko boo xamante ni def na at yàlla di wër ba bi muy yegsi ci moom yow nga yegsi waale di ko ziyaara far mbir ma yegsi mu téye ko xool ko ne maam Ousmane lii lan la man ni rek man ni ko lii de li koloñ bu neex la dafa mel ni cocktail la cocktail la mu ne Mansour luy cocktail Mansour ne ko maam mooy mu shakkal jërëjëf yàlla la yàlla fay mm, si Alaaji Abdu jël xalima ak bi ne bind leen sama sa bi bala muy dem ne mu shakkalun cocktail a ngi nii bañ ci ñoom min hanbari waxuudi du cocktail fruit bi de bu ñu boolee anbar gëtt gu neex la waa moom la ñuy suur ca jàkkay rasulullahi moom la ñuy suure kaaba ga ataa bihi zulkulukil indi na bihi ci cocktail bu neex bi le kan waxagul turuwaa ji ko indi de waaye nee na zil xuluqi borom jikko almahmudi ba yàlla sant jikko ji yàlla gërëm Mansour lépp neex na mais yàlla gërëm la moo daq lépp te sa maam Abdou du waxantu te nee na sa jikko yàlla gërëm na ko sa bàyyi ne abiduna Muhammadul Mansour ne lu xew kan la xamaguñ ko dem Baye Abdou Aziz Dabakh mu ne xafiduna xanaa sama sët bi sama sët bi Muhammad c'est boobu moo ci am solo man Mansour mii nga xamante ni saa yuhu ay démarche ay jéegoom ay waaxoom ay relation am baynal waraa waxul ci diggante kër gi de waxul ci diggante réew mi de waxul ci diggante police baynal waraa la wax ak ànd ak àddina bi yépp baynal waraa lu yàlla gërëm la nee na doxagoo fi mukk loo xamante ni da ngay daaneel ñi yëkkati ñi affaire bi dafa doy waar soo ko analyser da gis nekk sa maam fa mu waxee du fii ñëwal min makkatin xayri bilaadillahi ah maam as yëpp neex na waaye bii jóge ci sër Cheikh Alxaaji Ahmeda ko def rakk yàlla waaw min makkatin xayri bilaadillahi dañ leen di topp Ahmeda moom min makkati nee na la jóge fan mooy makka xayri bilaadillaahi maskatul si xayri xalqillaahi da baax ne Mansour la nga ko indi woon ma nga jóge far rasulullahi gane àddina birri waaw kay ñëwal nee na bir ci ci ci ci ci sagesse war rafati ak ñeewante wa tawaaduci ak modeste nee na ñi nga raw ñëpp nag ci loolu nga leen rawee nee na loolu kenn wéranteetu ko Mansour ku ko nangu nangu nga ko ku ko bañ bañ nga ko te nag magum ji mag moom ku ko jey xam na ku ko wax lu dul dëgg xam na te man jomb naa ruus naa ñëw ba fii di la tagg wala may wax pour nga kontaan wala ma lay jey yàlla rek laa koy séedeel yàllaa ni wala taktumu shahaadata wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbu man bi man loolu yaa ko wane moo tax ma wax ko nee na samaam nee na sa kanam gu leer gi nga ubbi nii ñemeloo ma ba ma jël micro bi ci yow nee na ak nooy gi nga nooy ak teggin yu rëy yi nga xamante ni moom la la gaa yu toppee nee na ci ngay jëflanteeg nit ñi ak ñeewanteeg mbaax lool wonoo leen nag maw maw doy sama maam wonoo leen ni Serigne Babacar yi sama maam wanee loon ni jëmi lay suma baay wakaana li usrati malja waaw kay nee na nag foofu laa doon ñëw nee bu mag bi nekk ci digg bi nga xamante ni su daanoo rek daanaka affaire bi jeex na yow yaa nekk pied bu mag boobu nga xamante ni moo téye famille Cheikh Al Hadj Malick nekk na Mansour lil usrati ci famille Al mal jan wéeruwaay ak ndëgërul ak ndëgër lay وربنا يقيه kon nag man sama am dama lay ñaanal yàlla sharafi hasab mu musal la ci gaañu iñaan ndax du ñàkk nag ataala umruhu al yàlla na guddal umruhu sa dund gi sama may ab doy ñaan de al-azizul baaqi yàlla mu baax mi nga xamante ni ku mu dud ku mu këfenal nga kii si maalik suñ ko toppee dafay jeex la si maalik daal ñu ngi lay ziyaara man tey maa ngi wutu njabootu Cheikh Al Hadj Malick bi di la ziyaare ziyaarati istimdaadin wa tabarrukin ñun kontaan nañu bëgg nañu lépp baax na si si tabaarakallah macha allah lafal la cat laa lay ñaanal ak léegi est-ce que kooku ay xilaafatul jallabiya foofu lañu ñu kooku bokku ci kooku moom may nul war a mashur kooku moom beneen affaire la moom ca France laa ko gisee woon mu ngi sol benn yi benn tuba yu velours bu rafet ak ak benn jegetu cuir li ñu koy mën bi ah bi nga sol rafet na di mu ne ma tool yàllaa jóge wallaay si mu ne ma tool yàllaa jóge ci la waxe waxee woon bayitam bu bu ne banaw lil wara maahida waaw fa ma ko tëje fa ma baalu xasrun lil ximaari yu sajjalu xaw ma naka la wax waaye sëriñ Maodo si mokkal na ko waaye awaasima min nuuri yu shakkalu waaw banat lil wara maahida moom daal tabaarakallaa lépp leer la yàlla yàlla lafal la cet xam nga foofa la la lii la dugg duggee bi nga ne Serigne Cheikh li mu boole ak li mu yëg Mansour ku ci nekk la nga yëg li dafa biire Serigne bi yàlla na la yàlla may wér ak fan bu gudd xaw ma kan de waaye Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum kontaan na ci yow. dafa def benn tawriya tawriya moo di ñaari baat baat yu bokk nuñ leen bind te bokkuñu lu ñuy firi. cheikh ahmad bamba radiallahu anhu jëfandikoo na ko nee na wa kullu man ahabbani aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara wa kullu man ahabbani aw maala ilayya farzuqhu hudan aw maala aw zaara aw zaara aw maala aw maala mu ni wa kullu man ahabbani képp ku ma sopp aw zaara wala mu ziyaar si ma fa najjihi yàlla na nga ko musal waxfir lahu awsaara te jéggal ko ay bàkkaaram waaw ni wakkulu man ahabba nii képp ku ma sopp aw maala ilay wala mu jeng jëm si ci man nee na fa naj far euh, farzuqu na ko wërsëgal hudan ak njub aw maala du ni du wala du ni wala alal de aw du kooku du tax yiir aw dafa bokk ci xuruufi at fii aw maala ko may njub ak alal Cheikh El Hadj Abdoul Aziz nag mu ne yaqulu xaamidan ilahahu aziz wa shakiran alaahu Abdoul Aziz mu ni yaqulu wax na xaamidan maa mi ngi wax ki wax nag day sant boromam kooko kumu Abdoul Aziz muy ca mu jeexale fayil ja ca wayu mujj wa ni Abdoul Aziz ah xaamidan nag ilaahahu muy sant boromam wa shakiran muy remercier itam xamdoog sukru la jëfande foofu ila alaahu ay ay xéewalam kon yu am solo la sëñ Cheikh wax nañu ko ca benn conférence mu ni qaraatul baaba xatta kallamatni falamma kallamatni kallamatni mu ni fëgg naa bunt bi ba sama gannaaw gi sama jogore sonn lot waaye fa la ma kallamat nii ba jogore ji lottee kallamat nii ka ca biir néeg ba wax naa ak man <laughs> loolu mooy tawriya yu mu ni daawuda daawuda daawuda xam nga tur la waaye daawu ismu amrin la ci fajal fajal faj leen daa di jàngoro mu ne daawuda daawuda asalaamaaleykum